bu ngeen gisee jootaay bii nag xam ni nag màggalu poroxaan jub si na waaye jootaay bi ñu gën koo miin ci li nga xam ne nag mooy waajtaayu màggalu poroxaan loolooy lan journée culturelle lu soxna jaara bi nga xam ne at bu jot sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad moo koy woote at bu jot di ko defee ca CICES bis bi nag ren doon dimanche le 9 février ku ne miin na jootaay bi at bu jot ci ndigalal sëriñ taxa Basiir ñu toog fii ci kanamu cheikh Mouhamadul Basiir moom cheikh Abdoul Xaader ci ndigalal sëriñ bi ngir mu soññ ci bis bi kon mbokk yi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk jullit yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul aam di tariqatil muridiyya xafidahullahu taala wa raahu ci ndigalam lañ toogee fii di jotlaat ay kàddu muy loo xam ne de ñaari cëram ndax ba ci jiitu mooy doon gi mu doon Serigne Touba lépp lu ñuy def ci yoon mu nekk ci yoon kilifteefam waaye lii nag bokk ci toolu boppam ndax ku ne xam na ne lépp lu ñu defal Soxna Jaara Cheikh Mouhamadou Bachir moo doon jëwriñ ji ginnaaw Cheikh Mouhamadou Bachir Serigne Moustapha Bachirou daan ko taxawu ba mu agsi bi mu fi bàyyi ko itam Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk jëwriñu kër Serigne Bachirou moo tax lépp lu jëm ci poroxaan ak soxna jaar rek moo koy taxaw lii itam di lu ko itteel di lu ko ñor ndax doomam sëriñ Abdul Ahad Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Cheikh Abdul Ahad di doom ci moom daa ko taxawal ngir jàppale ko ci liggéey bi ak gàttandoo ko ci liggéey bi waaye li tax sëriñ bi mu ñor ko ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ni ko ñëpp xamee ni mu amee ni mu bëgg Serigne ak ni mu amee positif ci sëriñ bi képp ko gis nga bokk ci sëriñ bi wala mu gis na nga dib taalibe di xeeñtu yoonu Serigne di doxi positif da koy itteel loolu war a ji ginnaaw bu mu itam liggéey bi ñor ko ngir soññ ko ci yoon wi nga xam ne mi ngi ci te wàcc ko moo tax lii njëkk mu doon Serigne Touba moo ko daan defal boppam at mu jot kenn mosu ko ca doy moo ko daa wooteel boppam soñu ci taalibe yi ba yàlla def nag muy Serigne Touba jaboote ñëpp ku ne xam na ne galfan na boobaak léegi nag diggante daaw daaw jëkk boo agsee mu yebal eh, Cheikh Abdou mu ñëw ci man jox ma digal ne naa ko ko soññal taalibe yëpp kon Cheikh du ñu ngi koy ñaaral bu baax ci barkeb Serigne Touba yoon wi nga xam ne suubu na ko ndax moom foo ko gisee rek ci loolu laa laay gis mu ci yëngatu. mooy lu yàqale rek mbirum sëriñ bi kon yàlla ko ci yàlla dimbale bañ cee bañ am gàllankoor bañ ci amul ndokk ndax sëriñ bi kat defal nañu lépp féetuñu ko fenn kon dara waruñu waruñu lu may suñ dund gépp ñu jël ko jébbal ko ko bañ cee desal dara loolu kat mooy suñu ndam buñ ko deful ay yaafus lañ kon loolu moom comme yàlla defal na ko feex nag xeer ko ci loolu dañ ko ci soññ di ko ci sant di ko ci ñaan tam maamam gàttandu ko ci. di ci soññ itam taalibi Sëriñ Tuubaa yi ci eh, ak jullit mi ma yaqbalu nasihata min axiihil muslim képp koo xam ne rek mën nga ci jëf ndax moom dunu ci dara lu may dajale ko rek yóbbu ko te loolu alxuraan dafa santaane ci mënut di jàppale ki man li yunfiq zu saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq ma aatahu llah wax na ko fu bare bare sax ci ni ñu war dimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi kon nag lii muy dajale la maam ji Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek laa ci fàttaliwaat daa wax ne man de eh, addee duma ci gërëm kenn ndax am denceen ma rek la kon lii muy def itam gëm naa ne ca loolu rek la tàbbi kon nag yàlla ko ci yàlla defal ndimbal te ñëpp itam wuy sugu si te jàppale ngir xam na ñu ne foofa mënaluguñ seen boppu dara kon képp koo xam jug nga ngir xettil leen na nga xam ne eh, sa ndimbal ci loxo yàlla ne waaye sag pay ci loxo Sëriñ Tuubaa nag ndax liñ ci jëf Sëriñ Tuubaa da ci dakk kon yàlla na ci dajeeg tawféex day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa yàgg ko jëf bu baax baax nag te suñ borom sellal ko jëf ci ba dara ci aafatu ak kadaru bañ ca tàbbi kon ñu ngi ci soñ ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngeen kàddu yu sell yooyu nga xam ni moo bàyyi ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moo fi te jëwriñam ji yëkkati ko muy Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér bis bu ku ne xam na ne at bu jot dañuy jël koo xam ne référence lay doon ci jigéenu lislaam yi mag yi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu murit ngir ñu waxtaane leen fa seen i jukk ak seen i qualité ngir nit ñi mën a roy ci ñoom ren nag ñu dara jaale ki nga xam ni mooy soxna Aminata Lo mi meññ Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon ñu ciy woo njaboot gépp ci njiital sëñ Ahmadou Makhtar mi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak Serigne Moustapha Mbacke mi xalifa ñu ngi ciy woo Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom Serigne Bassirou Khoudia Dieng moom Serigne Baara di ci woo Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Khadim Awa Ba soxna Astu Gaynde Fatma moom soxna Bali soxna May Munatu Mbacke Khadim Rasoul soxna Seynabu Mbacke moom moom Serigne Cheikh Gaynde moom Serigne Sidi moom Serigne Abdou bi di ci woo ki nga xam ni it moom la Serigne bi teg ca Dakar mu fay jëwriñam muy Alaaji Mbacke fay ak mbooleem ñi mu liggéey bi yëpp di ci woo Serigne Saliou Thioune mi nga xam mooy xalifa notaire ak soxna Momi Kebe mu alaaj ñu ko Kebe ak soxna Matiloo Gaydeel di ci woo ñi nga xam ne nag ñooy ay bàjjenu boppam te lépp lu mu ne suba ngoon gu dégg bëccëg liggéey soxna jaara bi nu ànd koog moom di ci jiital soxna Waalo Mbàkke moom Serigne Saliou ak soxna May Munatu Mbàkke bintu Cheikh Abdoul ak soxna Kinne moom Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Bousso moom Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Maam Jaara Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad mu Serigne Cheikh Abdou soxna maam Issa Mbacke ahlu café ni soxna Nene Gueye mu soxna Bintu samba soxna maam Ami Silla moom sëriñu son yi bu Mbacke ak soxna maam Faati Mbacke mi nga xam ne moo féetee ca Ouest Foire ak soxna Gàmmu Jóob ak mboolem waa Masaalikul Jinaan yi ak soxna Ndey Mbaw Sindiidi ak soxna Fatimata Fall Lamp Mam Jaara nu soxna Kodd Mam Jaara ak soxna Mariam Touré mi nga xam ne moo féetee ca Abidjan jiite fa daayira Mam Jaara yëpp ak soxna Awa Sall ca Gabon ak soxna Kinne Cuun mu soxna Baali Muntaxa ak jëwriñ Samba Jaw mu Masaalikul Jinaan ak jëwriñ Sëriñ Moodu Mbay Sàmb soldaaru Sëriñ Tuubaa bis bi nag ku ne xam ne ren nag parrain bi sëriñ bi da koo dara jaale ki nga xam ni mooy sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Soyibu mi nga xam ne suba ngoon gu dégg bëccëg mi liggéeyal sëñ tubaa ak di muy soxna baali muntaxaa moom it ñu ko ci jiital di ci woo mboolem kuréelu daayira nuuru daayira ni soxna baali yëpp waaye bis bi nag sëñ baa ngi ci rendu hommage sëriñ Cheikh ñu koy ñaanal sa dolli leeram te taas ñu ci barkeem ak soxna jotu Mbàkke bintu Seex Mamadu Lamin Baara ak soxna Ami Mbàkke bintu Serigne Saliou Mbàkke ak Serigne Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou ak Alaaji Mamadou Nasiru Touré mu Cheikh Mouhamadul taxaa ku ne xam na ne nag at bu jot day am ay jumtukaay yoo xam ni moom la ñuy laaj ci bis ba ngir jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jëm ci daare maam jaare nga xam ne moo nekk ci poroxaan daa ci wax yu temb ku ne xam na ni ay mat laa la nu laajoon waaye mbokki taalibe yi def ci liggéey bu am solo ñu dajal yëpp jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu yabale ko ca daara ja ren nag ñu wax ni soxla nañ ay basang ak ay mbàjj ak lu lépp loo xam ne rek jigéen mi ngi ci daara di jàng di ko yittewoo ci ay adawaat bagage yi jigéen lu ci waay indi rek naa xam ne soxla nañ ko ngir yóbbu ko ci daara maam jaara kon daal mbokk yi bis baa ngi noonu dimanche lay doon le 9 février ca CICES ku ca teew ku ne soxna jaara fat la te ku soxna jaara fat ku ne doo fanaan biti wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soo leen bëggee abonné si chaîne bu mag bii di académie minan dem leen youtube bind daaru minan dër nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati si actualité